leçon numéro 67 masalikul jinaan wa minhu bakk na ca ngistal tarku sëhi bàyyi jëf ju baax joo def sil ifaada jëf ju amoon njariñ nga bàyyi ko xëy rek ba li ajlihim ngir waxi nit ña mu mel ni daa nga def ajjuma ju jot nga saraxe cent mille francs nit ña rang leen ku ne nga sarax ko ñii dix mille ñii cinq mille ñii mille francs ba nit ña yaakaar la ji la fa dakk nga xëy rek bàyyi jëf ju baax jooju ngir ne nit ña dañu ne damay ngistal su boobaa bàyyi ga tamit ngistal lay doon ndax nit ñaa tax nga bàyyi ko waaye yàlla taxut kon lu baax loo doon def ba nit ña yaakaar la ci wéel ko bu nit ña dee wax day ngistal wéel ko bu ko nit ña waxul tamit wéel ko waaye lu baax lu ne bul xëy rek bako ngir waxi nit ña ndax boo ko bàyyee ngir waxi nit ña bàyyi ga day daal di doon ngistal ak biir sëriñ Tuubaa nee na bokk na ca xeeti ngistal ya wa sukuru jaamba di sant yàlla listizaad ngir ay mbiram dolleeku sant yàlla ma nga war a tàmbalee ca fa mu lébbinde nga doon nit ko doom doomu aadama nga bokk ci li yàlla gën a bëgg mooy nit yàlla def la nit li yàlla gën a bëgg mooy ab jullit ku gëm yàlla yàlla def la ngay jullit bu gëm yàlla li yàlla gën a bëgg gën a bëgg mooy nga bokk ci xeetu sayidina muhammad def na la nga bokk ci xeeti sayidina muhammad kon booy sant tàmbaleel ci yett yu mag yooyu mu la cërale su ko defee cant googa ca la lay dollee waaye sant rek ngir mu dolli sa wërsëg googa cant ngistal gu nëbbu la yàlla taxut sa soxlaas boppa tax yii yépp yoo ciy def def ko ngir wone sak njame goog yaa ngi nangu sak njame ci borom jàmm bi di yàlla sëriñ Tuubaa nee na su ma dawaahu zeyni topp nag yow jaamab yàlla bi boo bëggee faj yaari jàngoro yooy antax lama mooy na nga xam anna kulal umur naka bépp mbir wala mbir yépp bi yadihi mi ngi ci yoxoy yàlla ndeysaan fii zaman ci diirab jamono kon jàppal ne lépp mi ngi ci loxoy yàlla àddina ak àllaaxira sant ko jëfal ngir jëmmam ja wal xalqu bindeef yi laa yanfahu mënuñoo jariñ moom bindeef mënuta jariñ nafsahoo boppam layaat dara dara ki mënta jariñ boppam fa kayfa xayruhoo isan nan lay jariñe keneen bon ku mënta jariñ boppam nan lay jariñe keneen bon minal xibaadi kok bokk na ci jaam yi moom mi mënta jariñ boppam nan la koy jariñe isan boobee ndeysaan yow jullit na xam ne sumal wahiidu fihima tëkku ba yàlla tëkku ñi jëfe xeeti ngistal yooyu rawaate na yaari ngistal yooyu yaa saahi yow sab àndaale xamal ni tëkku googee sadda duhu yàlla taral na ko lool rahmaanu mooy aji yërëm da nga xam ni mooy yërëm kamel na bu bëgg waaye ñay mel na yàlla bëgg tëkku na leen lool rawaate na xeeti ngistal yooyu bi ti deexi tëkku ga nag dafa leer nañ ca mbindam alxuraan yàlla di tëkku nit ña mel noona yal na nu yàlla musal ca melokaan woowa yaa ngi jàng naan jinaan page 73 sëriñ bi nee na wa masaloo muraahiyan misaalees na ab ngistalaa bi man ci jaamab yàlla boo xam ne hawaa am na jawharatu wurus jawharatun wurus nafisatun wuri sell xaddistawaa wurus woo xam ne yemoo naag samanuha njëgg kowe na maal uloofin ba egg ci ay junni junni kasurat yooyu bari nañu lool fa baaxaa mu mujj jaayi wurus waawa bi falsatin ci ay weccet kat ak xurat yooyu xeebu nañu mu ne noonu wurus ba valëree nga mën caa am ay junne yu bari nga dem jaaye ko weccet yu neew noonu la ngistal di yàqe valëru wa ca jëf lu jëf baax baax jëfoo ko woon ngir yàlla lut daa ko def ngir ngistal wëloor boobee wurus wa am lu ko jëf ja am am ngistal ñëw yàq ko ba màbb jëf ja ba jox ko wëloor wa tóoti yeel ci yàlla musal sëriñ bi nee na wakaana te kat ndeysaan nekk kon na bay wuxaa la nga mënoon a jaaye wurus wu wëloore woowa bi alfi alfi ci ay junney junni te am kanoo loolu lu nekk la lawla istidaadu dux fi su nekkul woon tarak doye di ga tabbi ca wurus woowee muy jëf joojee tarak doye di ga nag la ko ca tabbal mooy ngistal nga jëf ko te yàlla taxut bam lépp mujj doye di ba nga xam ne ay weccet wu tuuti as weccet so tuuti nga ko mujj wecci ko moom wurus wu wëloore woowee kon jëf ju baax ju dëppook ngërëmal yàlla war koo na am ngërëmal yàlla ngay ngistal ba jëf ja suufe ba mujj ñàkk solo lool ngir doye di gacca ngistal ga dugal wa billasi ta ca jëf ju ojeekat nga dugal ngistal ba mu yàqu am kanoo jàpp ni woon na rida al qadir ngërëmal aji attan ja ji yàlla moonoon nga ko caa am bi sax yi ci sa jëf jooja waaye nag ku doya di ki faxtaara da mujj tànn rilwaanal faqiir ngërëmal ku xeebu kee di nit bàyyi ngërëmal yàlla muy sedel jëf je nit bàyyi yàlla waaw ana nit moomee nga koy seedeel sax bu xamee ne da ngay ngistal da lay mujj jéppi nit ma ngay woon jëf joojee ngistal moomee nga di ko seedeel nit bàyyi fa yàlla ma taxoon es waroon koo jëf bu demee ba jëpp la bu xamee ne yow ab ngis talaakoon nga dalay jéppi fa kay fa ana nan ngay def nag in ab xadahoo moom mi nga xam ne moo doon ngistal di ko won nit far nit mere ko alfaqir nit mu xeebu moomee mujj sax mere ko ca min baadima ginnaaw ba nga xamee ne tamit saqitowoo mere na ko ca ngistal loole alxadiiru yàlla mi aji attan kon fu mu jëm perte na ñaari yoon nit ma mu doon won jëf jamuy ngistale nit mere na ko yàlla yit mere na ko kon kon moom fan la jëm moom mi doon ngistal lu tax mbir nit mere ko yàlla mere ko li ma dara ndax dañoo xam ne bi anoo naka moom nit kii kat laa yaxmalu du jëf lu baax mukk illa li ajlihi lu dul ngir es màggal ko ca nit ñi gis ko màggal ko ko màggal ko ci jëfam jooje waaye yàlla taxul kon kookee doon ngistal nag fa daa sànku na ay jëfam sëriñ Tuubaa ne waxmal dee jëf ak jaamu yàlla li ngir yàlla mi nga xam ne isaa amilta su fekkente ne yaa ngi jëf loxoo ngir jëmmam ja bi wàcc yi al ixlaasi ci anamak ak sellal yow mi jëf loola day nil ta di nga am ridaahu ngërëmam yow mi jëf ngir jëmi yàlla jëfe ko ci anam ak sellal yow day di nga am ngërëmal yàlla waxamal del jëf liman ñeel yàlla mi nga xam ne intak tasib su fekkente ne faggu nga ridaahu ngërëmal yàlla moomee bu dee faggu nga ko yàq fika sunu borom moomee dina la fegal fii daayira yi ni ci yeeri kër yi muy àddina ak allaaxira maa lépp loo xam ne tax saahu ragal nga ko kon kay ku fexe ba am ngërëmal yàlla yàlla fegal la li nga gën a ragal ci àddina ak allaaxira sa lépp baax na kon del jëf ngir jëmm jooja di yàlla sëriñ Tuubaa nee na waxamal del jëf liman ngir yàlla mi nga xam ne yux nii doy na sëkk man ca ka nga xam ne istardaahu ma ngay sàkkoo am ngërëmam bi taaxatin ci topp yàlla an kulli ma siwaahu waaye sàkkuwul ngërëmal keneen ku dut yàlla kon del jëf ngir yàlla mooma yàlla na nu yàlla xiir sunuy jëf nu di ko jëf ngir yàlla yaa ngi jàng masalikul jinaan page 73 wasalaamu aleykum